jërëjëf mbokki internet yi bu rëy ngi leen di nuyuwaat di leen ziar di leen ndokkeel dellusiwaat ak yéen ci beneen jotaayu xam-xam ànd ci ak soxna aada seexu yàlla bi euh, soxna aada euh, ñoo ngi lay nuyu di la sargal di la ndokkeel waaye démb gis nga dëkk bi tey yeewoo ci naqar ci la nga waxoon ne gis naa ay deeyu ñaaw nee naa ñu bari nag xam naa ñu ngi naan <laughs> soxna aada dañ ko yóbbu faar euh, démb ab kaaru tata ay nit juróom-ñaari nit sànni ci lu ñu tuddee cocktail molotov ba am ñaar ñu ci ñàkk seen bakkan deegu ñaaw vraiment euh, ñi nag tiit ci mbiri Sénégal te dama naan lépp lu ci amoon rek tey soxna Ada waxoon na ko waxati ko waxati ko waaye wax waxaat lu bari wax leeral rek lay jur wala fàttali soxna ñu ngi lay nuyu di ziar bàyyi la nga ñëw ñu ngi seen sur bii pro a'uzu billahi minash shaytaani rajim innal hamdalillahi wa nastaghfiruhu ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمال الناس والصلاة والسلام على نبي المهتدى الخائن xaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun sëñ buur maa ngi leen di nuyu di leen ziyaar leen jox seen wàccuwaay mhm. mbir mi dégg nga ko bi nga mu nekk nouvelle bu bu metti mhm. ndax ku ne xam na ni tiim nit di ko sotti ay mbir ba muy làq Mm-hmm. loolu sëñ buur xol bu normal sax nag gisuma ko fi mm-hmm. mooy li sunu boroom daan wax rek naan am na xol yoo xamante ni dañoo feebar mm-hmm. sëñ buur xol yi feebar nañ bu yàgg ndax doomu aadama ni yow bu demee bay faj ba ni muy fajee ñeneen ñoo nga xam ne seen yoon nekku ci Mhm. seeni bakkan di ci loru mhm. ba ñuy tàq ba jeex mhm. ah xol yi feebar na gis naa soxna soo xam ne bi mu génnee ci kaada bay raam ak ni mu lakkee noonu wallaay sama yaram dafa daw billaahi wallaahi taala sëñ boobu soxna Aada amul jotu xëy rek ndeysaan jàkkaarloo yow loolu boo ko ñëwee fekk nga ko ci xat-xat ci wàllum liggéey nekk fi di taxaw ci yeneen ak yeneen kon du bëgg écran rek moo waral chaque jour. mooy gën di wax waaye dañ naan fa zakir. bay mm. na zikra tan faw. loolu mooy noonu. Mm. dee leen fàttali ndax fàttali dina jariñ. Mm. te sunu borom boobu nga xamante ne mooy borom kun. nga xamante ni ku ko jiitu ci dencam ba mu wan la leneen. waaye bu ñu defee ay fam ne nañu ko am yu ñuy wax. dañoo wax ngir nit ñi fagaru rek. ndax ginnaaw. fagaroo gën faatu mm. ndax dafa am loo nga xamante ne toll nañ ca te mm-hmm. dara waralatul ko ñu koy wax loolu ñépp nañu àndandoo wutali kaaraange mm-hmm. ndax gën a wóor daa am te képp mm. kuy dund war ngaa sàmm sa bakkan di ko mm-hmm. sàmmale sa njaboot côté boobu rek lañuy waxee coowal usmaan Sonko lii ak coowal kaso bii soxna Aada lim ci doon bëgg mooy ñu bañ a téye sax Ousmane Sonko ndax kon yaakaar naa yooyu bakkan duñ leen taal ñuy tàq ba jeex ndax defuñu dara nag. Ousmane Sonko sëñ Buur. Mhm. kii di Sonko. naa la fu jaar dinañ mhm. ko téye. newoon naa la fu mu jaar mhm. dund fitna. waaye dama laa bëgg a xamal ne sëñ Buur ñaan yàlla mën na lu ne. gis naa bataaye ku ne day tas. aada dugg ci ay mbiram. jël lim. kudda euh, jël lim euh, adatu kun fayakun mm-hmm. dóor ci lu yéeme ci zikrullah mm-hmm. suñ demee ba suñu boroom naan alaa bi zikrillahi tatma'innal xulub mm-hmm. zikkar turu yàlla kat day dundal xol kon sëñ buur zikkar ci turu yàlla dina fay coow yu bari zikkar ci turu yàlla dina defal problème yoo nga xamante ni foo xam ni fitna waroon na faa judd ñuy zikaral sunu borom ba sunu borom nongul ñu lépp sedd guyu mm. dama ne borom kurus yi ñaankatu yàlla yi ñi nga xamante ne nii am nañ yéene ci réew mi jàmm rek xaj fi dama bëgg ñu fiy dóor ay zikrullah nee nga mën nañu bàyyi coow li buñ ko def parce que sëñ bu coow li dafa gënul coow li gënul ci Sonko li muy yee dafa bari soo déggee man la coow yi gënul deeyu ñaaw li ma la waxoon gis nga hmm. deegu ñaaw ndax jël nit taal ko hmm. te xamoo sax ci bakkan la faral ak ci lu muy dund kon hmm. kookal ca lañ koy rey moom sax xamu nag sëñ buur dama bëgg a xamal ni yow ma laa tamliku nafsun li nafsin say a waaye wal amru yow ma isinillah bis ba nga xamante ni bakkan mënalu fa moroomu bakkanam dara kon ku yàbbu rek nag gën a ñaaxaat sa bopp gën a yaraat sa bopp ndax li xew ci jamono xewul woon bu njëkk mm-hmm. dee ni ñaaw yi ak fitu ray nit ci anam yu ñaaw amul woon sañ buur mm-hmm. kon boo amee li waral mu am lan la mais Ousmane Sonko ñaan yàlla la may wax ay nitam rek ñaan yàlla dëgg moo koy génne ca fa mu nekk mm-hmm. ñaan yàlla dëgg waral coow lii mën a fay ñaan yàlla dëgg mooy waral Ousmane Sonko gaaw génn dina génn nag waaye sëñ Buur. Mm-hmm. dama laa xamal ni kii du suñu président. Mm-hmm. troisième mandat daam du am. Mm-hmm. waaye xolam des na ci dëkk ba loolu mooy lan soxna la. <laughs> troisième mandat. Eh. naam amut. waaye xolam des na ci dëkk ba tey pour toog ci réew mi. sëñ Buur dama laa bëgg a xamal ni la. ay kilifa yu bëree bëri. jàppal li ma la wax. caabi dina leen féete ginnaaw. ay soxna del wax jàmm. sañ buur sañ buur mm-hmm. sañ buur mm-hmm. vidéo yi jëlal denc ay kilifa yu bari ci réew mi caabi dina leen féete ginnaaw maanaam dina leen tëdd kaso sañ buur <laughs> man damaa muuma fi mel nii dama laa bëgg a xamal ni la mm-hmm. ay président bu ma ko doon sant tey ku muy dëj ci réew mi Mohamed xam nga Boun Abdallah Dionne bu ko fi tegoon du ko topp ci dara du ko fitnaal ci dara hmm. te du ñaan ci dara te du ko àbb ci dara te secret bu mu ko jox mën na koo dencal da nga bëgg mu jiital ko ci mu jiital ko mu bañ koo jiital mooy ki gën ci moom mooy ki gën ci moom man xaw ma ko guddi xaw ma ko bëccëg Boun Abdallah Dionne moo gën Amadou Ba te bu ñu ñu ba dañ jàpp ne Amadou Ba lay jiital waaw ndax Amadou Ba nag guddi yi doogul taxawul te am na gàllaaj sëñ buur waaye li gën ci moom mooy Boun Abdallah Dionne. waaw. xaayaan nag ku dégg séeréer nit nag léeg-léeg di nga ko digal ndeysaan. Mm-hmm. bu defee ni da koy diigal wala da dugg ci gàndam. Mm-hmm. déedéet. léegi ku bëgg a mucc ci eh, jàpp-jàpp yooyu ngay wax. sëñ buur gàllaajo kaso yaa ngi fi bañ ko dalee génn demal ci sama yeneen ay vidéo mm-hmm. billaahi wallaahi warabul kaaba barke leeru alxuraan nit takk na sama gàllaaj ñu convoqué ko war koo téye wallaayil azim bam demee ñoo ñoo ko doon toppatoo di ko tarbiyu ni Safa Marwa mu génn ni ma yaay booy maa ngi lay ziyaar mm-hmm. waaye yaay booy gën naa yeesal sama njébbal ci yow mm-hmm. mooy wax de mi ngi may dégg mm-hmm. ñu ëlbatikoo ci mu gént ñu woo ko ci yoon ne ko tekkil téere bi ndax ñu mënal la dara wallaaxi wallaahi wa rabbul kaaba moo ma ko woo te moo ma ko wax rawal kon la ma ciy liggéey man xam naa ko mm. téere béjjën yooyu luñ ciy sox sëñ buur maa la day taali mm. nit am na coow nekk dig ñu war koo defee rek yóbbu ko mm. wallaay azim ba ñu tekki léppam mooy ki ñibbiwaat këram na ci jàmm sëñ buur ba tey dama lay firndeel rek ne la ñaan yàlla mën na lu ne te ñaankat yàlla yi buñ mobilisé woon ñaan ci dëkk bi jàmm dee yi dootuñu bëri coow li dootu fi bëri wax ji dootu fi bëri waaye sëriñ si it dañuy bëgg a sonn sëñ mais ni ma jaaxal sonal. nga wàcc sa njaboot. war leen a dundal. Hmm. nekk ci problème mu dëkk bi nekk ci problème mu nit ñi guddeeg bëccëg subaa ngoon ku la yor ku la yoral dépense. kenn du lu yomb. Hmm. waaye sonal man li ma jaaxal euh, Macky dafa mel dafa bett gaañe fi mu nii ba léegi dara xew à part ñaari ñu rey ci yaraax. ak euh, benn xale bu dee ci pikin ñu ci bari bu ñu déggee soxna di wax dañ naan moom vaar la jëm rek ndax la mu doon wax dara xewu ci dañ jàpp ne buñ teewul Ousmane ko bis boobu pour man dee gi dana bari ñaanu ma ko yàlla. gis nga ñu dee. néew yi. Mhm. ñi may xeeñ ñi ngi ci dëkk bi ba tey sëñ buur nañ ñaan jàmm rek ci dëkk bi ndax jàmm ci la lépp xaj waaye dama laa xamal ne la bu wuree wa demee kër waxi mag dina dem daal daal dafaaw jël la am. Mm-hmm. Mm-hmm. sonko mi mm-hmm. nañ ci def ñaan yàlla yu wér te wóor mu jógee fi sonko nekku kaso gënul ci ñun sëñ buur <laughs> pare nga kon nag waa axira wu daawaana jaaro yi sëñ buur waaye sama jaaro yi waaw soxna Adama man xam nga yow man man jaaro yi ba man ba nga ci defaree nombre gis gaa ñi songandoo ko mook fas ya man pour man pare yaa ngi ci leneen sëñ buur guddi yi secret cat billaahi wallaahi wa rabbul kaaba nit sutuma ci duy dindi cat te réew mi nag yaakaar naa ñu fi gàllankoor sonal yépp wàllu cat la mm-hmm. secret bi jógewul ci lu dul fas li may àndal maa ko xam du lu may joxe dum lu may wax samay mm-hmm. secret secret mag njëkk ñi la mus mm-hmm. xam ndegam ñi doon sangu rab ñooy sant ak a bége ak a nekk ci seeni relation mu sax daaq ñuy am jàmm ñu di ma ko sant ma koy sante sunu borom moom jalla jalaal waasal kamaal woom waaye wàllum rab ak liy toj liggéey mi sama loxo. man daal bu neex boo ma ñamal fan euh, a. Ah, man balaa may ñibbi sa sanguwaat man fi mel ne man duma ko ba. Ah, ndax li ngay muus doo ko wax. Ah, kenn te man daal sonar man yow doo fi nekk ñu di ma kim wala nga di nga nekk fu ñu di ma fexel wala nga nekk fu ñu di ma sëf du ma ko def heure ma ñëwee sangu sama néew ci. sëñ bu réew mi maa ngi fi ñaan jàmm. Mhm. sax dàq zaayiran wa kon hmm. boog sëñ buur wa axiru dawaan alhamdulilah wasalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi